noo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ak weer wu mag wi ñu nekk di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu nangul ci suñuy jaamu yàlla te jéggal ñu suñuy bàkkaar di ko ñaan mu sàmm ñu sàmmal ñu suñuy kilifa di ko ñaan mu yàggal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha te yokk ko wér nu fas yéene dellusiwaat fàttalente soññeente ci lépp loo xam ne ñu koy ña ngi koy yëngatu ñu bàyyi ci xel suñu boroom bàyyi ci xel li ñu ci suñu diine jàngal te jamono yi ñu tàllu ku ne xam na ne ñu ngi dëgmal ay xew-xew yoo xam ne daana faral di ànd ak ay yëngatu moo tax rekk ñu bëgg a indi ak fàttalente ak soññeente ci taxawaay boo xam ne waris na ko cee am ndax ay xew-xew la yoo xam ne buñ ci bàyyiwul xel kenn ku nekk xam la nga war a def ak fa nga war a taxawee mën naa indi loo xam ne du gën ci réew mi kon nag kenn ku nekk war naa yëg ci boppam ne ab taxawaayam war na koo seet bu baax ba nga xam ne li ñu dëgmal dinañ ci dugg ba weesu ko ci jàmm réew mi nekk ci jàmm te mooy tànn gi nga xam ne dañ ko war a tànn ki war a jiite réew mi dañuy fàttali rekk lislaam moom lim nu digal mooy lépp lu nit di bëgg di ko wut da ko war a wut ci dal da ko war a wut ci jàmm ndax jullit daa war a gëm ne day sabab lu day sàkku waaye nag suñu boroom subhaanahu wa mooy joxe te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu xamal ne yàlla lépp loo xam ne nit a ngi koy wut wut ko ci dal la nga cay mën a ame la la ca suñu boroom di defal boo ko wutee ci ay ak fitna suñ boroom du la ko ca jox yont bi dafa wax ne inna allaha rafiqun yuhibu rifqa wa inna allaha yuti ala rifqi ma la yuti ala al unf kon yàlla dafa bëgg tey dal lépp loo xam ne nit a ngi koy wut ci di ko bëgg suñ boroom mën na ko koo defale ci bu ko wutee ci dal waaye bu ko wutee ci fitna mën na ko koo xañ suñu boroom dafa bëgg it képp koo xam ne wut nga ba am la ngay wut ci ndimbalam nga xam ne it dafa bëgg nanga ko amee ci dal la ngay wut nga saytoo ko yore ko noona ci ak dal ak jàmm yonent bi sallallahu alayhi wa doon na ñaanal képp koo xam ne falu na ci kaw aw xeetam taral ci ñoom ñaan ñaan na ko yàlla yàlla taral ci moom waaye ñaan na yàlla it képp koo xam ne falu na ci kaw jullit ñi ba noppi jëflanteeg ñoom ci jàmm ak dal ak yërmande ñaan ñaanal na ko yàlla yërëm ko yaar la defal ko ak jàppundal defal ko ak wayafal ca la nga xam ne moom la ko dénk yonent bi daan daan wax ne allahumma man waliya min amri ummati shay'an fa shaqqa alayhim fashquq alayhi wa man waliya min amri ummati shay'an fa rafaqa bihim farfuq bi kon loolu dañ ciy dégg ne képp koo xam ne suñ boroom dénk na la danga war a lam la dénk nga yor ko ci ak dal yor ko ci ak jàmm yor ko ci ak teey bañ caa dugal fitna bañ caa dugal lor bañ caa bañ dugal ak taral yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi xamal ne lépp loo xam ne nit ki ma ngi koy saytu saytu ko ci ak dal suñu borom subhanahu wa dina ko ca defal tawfiq ba loola dana taaru dana dana yiw dana baax waaye lépp loo xam ne nag dugal nañ ca rocci nañ ca dal googu loola suñu borom subhanahu wa taala da koy ñaawal ci bëti nit ñi ba kenn du ko du jubu kenn ne ma kaana rifqu fi cheyin illa zaanahu wa ma nuzia min cheyin illa shaanahu yonent bi sallallahu alayhi wa daana jàngale ñuy def ndànk ànd akuk dal ci wax ak ci jëf ndax sayyidatuna aïcha radiallahu anha am na ñu mosoon a nuyu yonent bi ci nuyin woo xam ne day melle ak moolu da caa nekk ndax waroon a wax asalaamualeykum wax ne asalaamualeykum te saa baatub saamu alkande lay firi ak moolu la ak day melle ak ñaan yàlla la ba ko sayyidatuna aïcha dégge mu metti ko mu delloo leen ko delloo wu tàng yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko alayki bi rifqi wa iyaaki wal unfa wal fuxsha ne ko defal dalal teel rek na moytu xët-xët na moytu fitna na moytu wax ju ñaaw loolu lañ cay dégge kon mooy wax ak jëf yépp nañ cee sàkku nit ki ànd ci ak dal moytu ci fitna kon ñu toll ci waxtu woo xam ne kenn ku nekk war ngaa yëg sa warugar xam sa taxawaay ñi séq li nga xam ne mooy xew-xew bi ñi ko séq ñépp kenn ku nekk xam la la sa boroom digal nga sàmmoonteek moom loola buñ ko defee jàmm rek ay am danañ ko weesu ci jàmm réew bi dudd ci jàmm te loolu moom rek mooy li nga xam ne moom la réew mi soxla kon ki nga xam ne moom la cay wàllam mooy bu waxtu tànn jotee mu dem tànn ka ko jubu kooka it la mu war a bàyyi xel mooy na fexe ba def ko ci ak dal ci ak teey ci ak ndànk bu ca noppee delluwaat fa mu dëkk ca këram toog bu loolu ko ñépp defee dara ci yëngutu mën naa bañ a waaye nag bu demee bay tànn it mu sàmmoonte caag suñu borom subhanahu wa taala waaye sàmmoonte caag li nga xam ne mooy njariñul réew mi bañ a sopp bakkanam wala topp bëgg-bëggam wala topp njëriñul boppam ndax kat dara jërul nit ki jaay diineem wala taalibeem walla ngorom te nit ki war naa xam ne la muy tànn bu fekkee ne tegu ko ci fam ko war a teg bala kamu tànn nekkul ki gën lépp lu mu def ci ay ñaawteef dana ca am wàll day mel ne rek li sëriñ Tuubaa di wax kabain say fi li lis sin kamuna fekk ab euh, jalgatikat nga jox ko ngànnaay kum ca lor kum ca gaañ yow dangay ngay daal di bokk ca ñaawteef googee mu def te tànn am na ci bari ci borom xam-xam yi dañ koy ja dañu weex ne shahada la seede la waaw nit ki day mel ne buy jël baatam di ko jox nit day mel ne ma ngay seede ne kii ci sama xam-xam sama yëg-yëg mooy ki gën ci ñii di bëgg lii ñuy wut waaye nit ki warta xam ne am na ku gën mu topp bakkanam ba tànn koo xam ne xam na ne kii kam bàyyee ku gën ndax seede nit ki bu koy def yàlla rekk la ca war a seet wa aqimu shahaadata la kon loo xam ne nag seede la booy seede la ngay seede day fekk mu dëppook la nga xam wala la nga jàpp jàpp gu wér ndax seedekat suñu borom subhaanahu wa taala xamal nañu ne nit ki lu mu seede dañ ko koy bindal ëllëg ca dees na ko ko laaj lu tax nga seede woon nangam sa tukkutabu shahaadatuhum wa yusaluun kon loolu lu mat a bàyyi xel la nit ki xam ne jullit moom amul lenn lu muy def te waru caa seet la ko diineem digal waruta def lenn it ca waru caa yéene lu baax yéene ca ak jaamu yàlla ndax àdduna dunduk jullit amul ay xaaj yoo xam dañ naan fii kat war na fee bàyyi xel diineem waaye bu dee fii barab sàngam walla waxtu sàngam moom day teg fee diineem xool loo xam ne leneen la waaye jullit moom lu muy yëngatu lu nekk rek la ko ca suñu borom subhaanahu wa taala digal da ko caa war a bàyyi xel kon loolu mooy li war ki nga xam ne moom daa tànn na ko war waaye nag am na ñoo xam ne ñoom lañ dénk ñu war a àtte ñi nga xam ne ñooy àttekat it lay seen warugar mooy la ñuy àtte tege ci dëgg ñoom it ñu sédd ci seen boroom subhaanahu wa taala loola ñoom bu ñu ko defee loola seen jaan wàcc bu ko defee ña nga xam ne ñoo ko seq mbir mi it lépp loo xam ne ña war a atte atte nañ ko ñoom it ñu maase nangu ko ndax kuñ teg ne daa war a atte bu defee lam firnde yam am yépp mu sukkandiku ca ba atte la mu àtte ñépp dañ caa war a tënku ndax yonent bi sallallahu alayhi wa jàngal nañu ne nit ki mën na àtte àtte yooyu mu teg ko ci firnde yuñ ko tegal loola bu àttee ba noppi ka nga xam ne jox nañ ko lu moomut kooka na xam ne lañ ko jox aw xalu sawara la ci loxoom du ca mën a jariñu du ca mën a jariñe kon li am solo mooy ñu àtte ñay àtte àtte ci dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa dafa waxaan ne man day nit laa da ngeen ñëw di xuloo ci man sama kanam léeg-léeg am ci yéen ñoo xam ne seenu lay mooy gën a jub ci ñeneen ña ca des bu ko defee man damay sukkandiku ca lay wa ndax firnde ya mu indi ba àtteel ko waaye nañ xam ne nag képp koo xam ne jox naa ko loo xam ne aqi mbokkam la loo xam ne du mbiram du yëfam waaye mu lay naa lay lay wut ay teg ay ndëgg sërëx ba ñu jox ko dëgg ca du dëgg na xam ne lañu ko jox aw dogit la ci sawara loolu nag yàlla ci yàlla musal képp koo xam ne rek euh, bokk nga ci xew-xew bi nga xam ne moom la ñuy dëgmal am nga ca wàll war ngaa xool sa taxawaay ñooy war a tànn tànn ci jàmm ña ko séq ña war a àtte àtte ci dëgg ña nga xam ne rek ñoo ko séq nangu kenn ku nekk lala euh, suñu borom subhanahu wa taala sédd nga nangu ko ñu daal di dëgmal leneen fas yéene jublu ci defar réew mi fas yéene jublu ci dimbali doomu aadama yi nu fexe ba moytu lépp loo xam ne ak yàq la lépp loo xam ne fitna la loolu nag ñëpp ko war a moytu fépp lañ ko war a moytoo ci réew mi waaye rawatina barab bii di Touba muy dëkk bu suñ boroom wormaal dëkk boo xam ne dañoo war a sàmm worma ji ñu war di fàttaliku sa waxtu wu nekk ndigal yi nga xam ne moom la ñu suñu kilifa yi di digal Cheikh Mahmoud Muntaka xafisahu llahu taala wa ayadahu wa nasara waxtu wu nekk mi ngi ñuy fàttali wormay dëkk bi rawatina ñi nga xam ne ay ndaw lañ ñoom ñoo war jiitu ci sàmm war may dëkk bi waxtu nekk ci ay ndénkaanam ak i soññeem mi ngi ni koy fàttali ndax kat nun li nu war a bàkke mooy ak dal akub yar fii ci Touba ndax Serigne Touba radiyallahu anhu ku ne xam na ne léppam ci jàmm la ko teg léppam ci dal la ko teg ca loola moom la ñu digal loola it ci la yar ay taalibeem ndax sëriñ bi wax waxoon na ne inna salaamata wal aafiyata xayrun min aksihima jàmm ak aafiya moo gën seenub safaan te mooy musiba aku ay ak fitna dénk na képp koo xam ne eh, ndénkaane bi yegsi na ci yow moo xam ne loo xam ndénkaan boo xam ne da ko bindoon wax ne laabiire la ci képp koo xam ne gis na mbind mi ca laabiire ga mooy tarku kulli mu addin ila tazalzuli wal fasaad mooy bàyyi lépp loo xam ne mën naa indi yëngutu mën naa indi fitna ak loo xam ne ak yàq dajay juddoo góorgóorlu ci def lu baax góor góorgóorlu ci tuub ci boolem rëcc rëcc yi mu tëje ko nag ne képp koo xam ne topp na ndigal lii kooku day murid la mooy ki am nammeel ki nga xam ne taalibe la waaye képp koo xam ne nag toppoo ndigal loolu ku fetteerlu nga man imtathala fa huwa muridun bil dammi wa man lam yamtathil fa huwa maridun bil fatxi ca ñaara fi nekk nekk murid wala nga nekk marid yàlla na musal ci nekk marid te kon day tegtale ne dégg ndigal mooy màndargam ak bi te kon li ñu sëriñ bi digal lu leer la nañu tënku ci ndigal loolu nañu sax ci dox jàmm ak di wax jàmm defu yiw ak di wax aw yiw loolu képp ku dëkk ci dëkk bi war nga caa gën a góorlu war caa nekk royukaay waaye nag ci réew mépp lañ ko lañ ko sàkkoo kon loolu lañ bëggoon a fàttalente di ñaan rek suñu boroom defal réew mi jàmm ba ñu jég xew-xew bi ñu dëgmal ñu weesu ko ci jàmm kenn ku nekk dellu ca la nga war a nekk ci jàmm loolu suñ boroom mën na ko yàlla na ko defal li nga xam ne nag moom la imaam war a xutba da ko jëmale ci weer yi ñu nekk ak niñ ko war a dundale ginnaaw bi mu sante yàlla subhaanahu wa taala seede ne amul benn buur bu dul moom seede ne yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo di ab yonenteem te it mooy ngën ji mbindéef julli ci moom dafa wax ne yéen jaami yàlla yi na ngeen dundal mbooleem waxtu weer wi ñu nekk muy weeru koor dundale ko ci li ngeen man ci julli ak jàng alquran ak tudd yàlla ak mbooleem xeeti jaamu yàlla yi ndax weer wi weer wu mag la weer woo xam ne genn sàbbaal goo ci sàbbaal moo gën junni sàbbaal goo sàbbaal ci lu dul weer wi ñu nekk mu weeru koor mu ne na ngeen baril ak jéggulu ci seeni bàkkaar na ngeen di tudd yàlla ci waxtu wu nekk ak anam gu ngeen mën a nekke na ngeen taqoo tudd yàlla moo xam dangeen a taxaw walla ngeen toog walla ngeen tëdd seen koor gi na ngeen fexe ba ñoŋal ko ci lépp loo xam ne daf koy nëxal wala lépp loo xam ne yiw yi ngeen ci war a am mën na koo far mën na koo wàññi ndax nag suñ boroom ni muy fule ci weer wi jëf yu baax yi nga ci jëf nga xam ne yool ba nga cay am dala koy fulal nekk noonu it ñaawteef yi ngay def fay fay gam la cay fay wala lam la cay teg da koy ful kon ñi ngi muy muy ñaan suñ boroom subhanahu wa mu jéggal ñu suñuy ñaawteef ca jëflanteeg ñun ci yërmandeem ca jéggal ñu suñu bakkaar di wax ne ci xutbam ñaareel bi ginnaaw bu mu sante yàlla seede ne muhammad mooy ab yonentam mooy ngën ji mbindeef dafa wax ne yéen jaami yàlla yi yéen nit ñi na ngeen ragal yàlla ci lu nëbb ak ci lu feeñ bu àdduna dox seen diggante ak ragal yàlla nangeen ngeen waaj fagaru bu baax ngir dajeek weer wi nga xam ne li mu ñu andil barke la yiw la xéewal la te weer la woo xam ne yu bari ngëneel la ndax yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon na ay saxaabaam ne leen weer wii leen dikkal day mooy weer wi nga xam ne da leen di laabal teit weer la woo xam ne àjjana ay buntam yépp dañ koy ubbi ci guddi yi ak ci bëccëg yi weer la woo xam ne guddi yi ak bëccëg yépp xool ayn ya ca àjjana ñi ngi waaj ngir di teertu nara teertu ñi nga xam ne ñoo koy bàyyi xel di ci sonnewu di di ci woor ak di ci di ci naafi la mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne saabu weer wi weer woo koor dugg yàlla day digal malaaka yi yi nga xam ne dañoo dëkkoo woon di ko sàbbaal ne nañ taxawal sàbbaal yooyu ñu koy sàbbaal tey jéggulul xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa kon loolu lu màgg la loo xam ne kon buñ ci tollee kenn ku nekk man war naa gën a góorgóorlu yàlla nañu suñu borom subhanahu wa taala boole ci ñi nga xam ne dañuy am yërmandeem dañuy texe ci yërmandeem boole ci ñi nga xam ne dañuy mucc ci mbugal mbugalam te mu defal ñu tawfiq ba ñu mën a sàmmonteeg li nga xam ne moom la weer wi laaj sàmmonteeg ormaam yàlla nañu suñu borom subhanahu wa taala boole jéggal yaxfirullahu lana walakum wala li saa'iril muslimin di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu nangul ñu suñuy jaamu yàlla di ko ñaan mu yàggal fii ñu kilifa gi Cheikh Amadou Mountakha te yokk ko ak wér te def réew jàmm ci réew mépp def ko ci réew yu jullit yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.